kon li addiya ji nga xam ne moom lañ doon wax moom la ñuy jébbal sëñ bi na ci kenn ko ne fas ndax fas nañ ci ba fasaale ci suñu bokk yi nga xam ne gisatuñu leen ñuy bokk ci liggéey beek mbokk yeeg ñëpp dafa kenn ku ne joxe nañ la dinañ jox am na ñoo xam ne nekkatuñu fi te joxe nañ leen lu mu néew néew fanweeri junni par par nit nga kon kon mi ngi nii ñaar téeméer ñaar téeméeri junni ñaar téeméeri million deux cent millions nga voilà tëjee borom borom waaw boobu ci la bokk <laughs> ayca sëñ sëñ Saal ñëwal ni ay sekk may ko may ko sekk <laughs> dafa am asaraan bu jëkk teg ko nii kay <laughs> dugal leen ci biir kàddu yii may bëgg a wax waxtaan rekk laa ci jublu waxtaan woo xam ne dañuy fàttaliku ndax nu gën a mën a yokk sunu liggéey lépp itam dañu koy delloo rek sëriñ bi suñu aatu ak bokk yu baax yi mu àndal li def jëru sax wax ndax jëf ji jiit jiit ànd nag lépp waaye nag nu waxtaan rekk ci sëriñ bi Euh, euh, yow Cheikh Mahamadou Bachir ak euh, Cheikh Saleh mën ngeen fi teewal mboolem ku ñu tudd ci sëriñ bi yéen leen fi teewal ndax jataay bii day day loo xam ne ku ñuy tudd ci sëriñ bi rek waroon na ko teewee waaye nag ginnaaw noo ngi fi ngeen yéen ñaar ñi ngeen wettali ci ak bokk yi ñu bokk sëriñ bi a ngi fi kon mën na ne jataay bi ñëpp a ko bokk ñu tuddi sëriñ sëriñ Tuubaa nag ñoo ñoo si jiitu euh, ak bokki bokki taalibe yii euh, nga xam ne tey ñoo waral jataay bi mi ngi tàmbalee ci fàttaliku te lépp ci sëriñ bi lay dellu eh, ngeen seere ne eh, ngeen seere sama digganteeg suñ bokki bi yi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom du man du ñoom lépp sëriñ bi ni ni ni man dox ànd gin ànd maa ngi ñoom déggoo dox ci biir ci bitti ba ci jataay bii loolu du man du ñoom sëriñ bi kon ni ma ko mën a tudde mën naa ko tudde koo tudd ci ñaari tur ànd giima ma ñoom ba ci jataay bii fam tàmbale ba ci jatay bi ca ndorte ba ci jataay bi loolu ci wàllu sunu borom dafa mel ne sunu borom da cee namm gën a feeñal mbirum sëriñ bi loolu ci wàllu sunu diggante ak sunu borom bu dee suñu digganteeg sëriñ bi nag dafa mel ni sëriñ bi da cee jublu feeñal ci boppam waxtaan bi mën naa gàtt noonu rek la demee du man du yéen sëriñ bi rekk la amul menn xel mu mën a xalaatoon ne soo digganteeg yéen dana agsi jataay bii amul menn xel mu ko mos a xalaat du xel mu mos xalaat ne jataay bii dana am sama digganteeg yéen mun da nekk danoo am tawfeex ju réy rek noog ñu bokk sëriñ bi ba mel ne dañ cee doon dara tawfeex juree rekk la seen yoon nekku ci sun yoon nekku ci lépp sëriñ bi xool leen ko bu baax fanama fa tàmbaleeg ñoom te kenn wuuma fañ ko tàmbalee ñoom te kenn santu leen ko diir bu gàtt lu daje ma ak ñoom ànd andi du rafet bi nu ànd ba ci jotaay bii loolu loolu loolu yoonu xelum doomu aadama nekku loolu loolu nammeelu suñu la bu mu nammal sëriñ bi loolu jublu sëriñ bi la bu mu nammal boppam noonu dong la demee dama koo gis giseen wu leer ne noonu rek la demee ma wëlbati ku gisaat ko nag dana euh, karaama jëf ju rëy ju baax mënu ko weesu loolu ma ne na koo tuddee ne karaama la ñu bokk ci karaama yi sëriñ na ngeen déglu seet li ma leen wax li ma wax bu baax baax baax rek la demee ana li ci des lu ci des sant bu baax a baax a baax boo xam ne mënee su ko wax ci làmmiñ mënee su ko feeñal ci xol xajul ci xol ca googu cant la war a def ca dolliku mooy yeesal sunu jaayante ñun noonu mboolem ku bokk koo xam ne euh, sa sa sëñ Tuubaa mi ngi ci sa xol waxuma laa nag ka nga xam ne dafa dafa dafa jaayante dundam gépp mu jaay ko sëriñ bi te yàlla tax sant cant gu rëy ak yeesal sunu jaayante ba mu mees peq fas ko koo wii di ko dund ba kenn ku ne ci noonu wàccub liggéey ñan wuutu ci ci lii nekk ca loola ba wàccub liggéey ñeneen wuutu nekk ca loola muy demee noonu ba bis nañ ci lépp di ndemal sëriñ noonu rek la demee Cheikh Mahamadou Bachir dañu saale maa ngi leen di seeral kàddu yi xanaa loolu sax daa dara waru cee desati xanaa nag sama xanaa xanaa xanaa sama jantu bopp ak yéen ah looloo ci des sama cantu bopp ak yéen nag ma ngi ci sama biiru cant sama diggante ak sëriñ loolu rek laa ci mën a dolli kon nag nan dem rek maa ngi labiré di soññe ci képp koo xam ne Sëñ Tuubaa ngi ci sa xol da nga yeesal sa jaayante woon gannaaw lépp jëm ku jëme ci jëme bi te sëriñ bi moom mu sa jëm ci dara lu borom xanaa bi mu ko joxe ne yonent bi mu wéy ca ndigal ba ndigal la la ca boromam bëgg mu mu defee ko ni sang bu baax ba mu defee mu liggéeyal ko ba lam ca bëgg mu defee ko loolu rek moo di dundam loolu nag mooy suñu ndona buñ ko xamee ak buñ ko xamut jublu ko suñu lépp suñu kem kàttan loolu bokkoon ci li yi ñu gën a jig ndax dañuy defaral tey defaral nu ëllëg kon nanu góorgóorlu bu baax rek waaw nanu góorgóorlu bu baax rek sunu kem kàttan kenn ku ne ne wax bu xëyee noo gumu noyyi na ca na ca na boppam jëme ko ci yoon bi rek yoon wa rek loolu rek la li ci des mënee su ko wax loolu laa ci mën a wax <laughs> laa ci mën a wax tubaarkàlla liggéey bi liggéey bi liggéey bi moom dara mënuñu ci mënuñu ci bett da ciy jëf ji rëy na lool jëf ji na lool ndax benn taalibe bu ne bu dëggal bu ne loolay xemeem téefam yitteem kon liggéey bi moom fa tabaarakallaahu sëriñ bi borom liggéey bi moom moo ko gën a gis man mi ci teg sama bët nii borom liggéey bi moom moo ko gën a gis moom moo gën a xam fi mu jóge fa tabaarakallaahu réy na lool waaye eh, waxuma la waxuma la ku aju ci bi ci sëriñ bi waaye jullit bu ne te te te te te nga gëm dëggu ci moom lislaam dëggu ci moom ihsaan dëggu ci moom kum ci mën a doon rek noonu la demee doon bëgg wax moo di rek euh, waxuma la ku aju ci bi waaye jullit bu mën a doon jëf diggam ak boroom boroom yombal na ko yombin woo xam ne mënee su ko miyaa misaal yàlla boo yéenee rek te defoo dara yi mu fay la dencal la ba fa nga ko gën a soxlaa boo jëfee mu tàmbalee fukk benn yiw mu tàmbalee fukk yow fukk moo lay delloo fukk yooyu ab tàmbali la mën nay dem ci sa ci sa jublu ci sa yitte mën nay dem ba doon ay junni moom benn boobu mën nay dem ba doon ay téeméer doon ay junni kooku mooy borom lépp te du jeexal dara jullit bu ne jëf leen teeg boromam noonu la deme waxuma laa nag aju sëriñ Tuubaa kon alhamdulilahi rabbil alamina jëf ji gisees na ko waaye sëriñ bi moom a ko gën a gis mooy borom liggéey bi waaye moom itam kam doon liggéeyal moo ko gën a gis kooka itam ka ko yebaloon moo ko gën a gis kon nan sant rek te soññu nan sant rek te soññu bu nu geesu bu nu taxaw yàlla yàlla mi dara tawul nag yàlla noonu yi ma wax yàlla noonu sunu borom muy jëf ak dindi gë gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi ndax lii noo am lépp tawféexi sëriñ bi moo na ko may ci la ko jaarale kon yàlla na nu gën a gàtt nag tawfiq sëriñ bi ban mën a gën a jublu mën a gën a jéegu bañ a dëpp bañ a geesu bañ a taxaw yàlla na ko suñu borom defal moom mi dafa ko dindi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi akub ngartanoo moom yàlla na ko sëriñ bi gàttanu boppam gàttandul nu gàttandoo nu gàttandul nu boppam ak ngërëmam te womatal nu boppam ba fa ko tax a jóg allahumma amiin yàlla nañu ko ñëpp tàllal ñëpp tàllal